su fekkee yàlla daf la nattu nga xam xaaja boo xam ne mënoo ko wax kenn ak ku mën a doon mbokk yi nga fexe nga julli ñaari rakka gannaaw diggante timis ak gaxe diggante timis ak gaxe wala diggante waxtu suba ak waxtu fajar ñaar yore nga mën a liggéey sa bi. xaajo boo mën a am xam nga dama fi jàngale woon Muhammad Ibrahima Moussa Insa non wax leen na leen su ngeen calculer loolu da ngeen am mille cent soixante et junne ak téeméer ak juróom-benn fukk ak benn wax ne turu yàlla wi ñuy tuddee Latif soo ko calculer téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ngay am. nga darba ko mooy nga multiplier ko juróom-ñeenti yoon da ngay am mille cent soixante et waxaat ne da ngay jël ñetti ñetti al ñetti tiire yàlla yii ñetti yii mooy alxuraanul karim nga bind tawreet bind injiil soo calculé loolu ismu yi da lay jox mille cent soixante et un nga dem ci asaabul awraat da nga gis aw sakkere benn sakkere buñ dëxëñ foofu Cheikh na Tidiane yi moo ko fa dëxëñ nee na mu ngi tudd musabahatu hasartu so ko calculé 1161 ngay am jappandal lu jafé mané mbok yi tay nak ismu bi la leen andil manam tur yalla wi japp ismu laayil asam bi lima wo ci nit ñi ma talatam bu japp 1161 kenn xamu num mu ko am ndimbal yalla dang ko am waw sirif na ne buma ko wax wallahi dana ko wax dana ko wax parce que man ko dama ne gannaaw julik timis ak gaye ngay juli ñaar raka wala gannaaw julik fajar ak suba dir boobu nag dir bu gaaw la ndax mënoo ko faa def kon da ngay fexe yow nga teel a fajar mu wóor 30 minutes do fi julli fajar do fi julli suba wala une heure temps yi nga liggéey secret bi ma lay wax insha allah benn bis nga koy liggéey muy waxtu muy bisu aljuma su la rawee altina bu la rawee alxames jeex na semaine bi yëpp ñetti bis rek ngay am do tok ci karamu kenn wax ko aajo ta nek ñi nan tabdil la yoré ñi nan day wéccé xaliss kenn xamu num mu ku liggéey ni man maa la wax lool Habib moo la wax déglul bu baax da ngay julé ñaar rakka rakka bu njëkk bi nga jang faatihatul kitab ben yoon nga ya bunni ya inna in taku misqaala habatin min khardalin fatakun fi saxrati aw fi samawati aw fil ardi yati biha allah inna allaha latifun qabir juróom ñent yoon nga rukoo sujud taxawaat julliya jàngat faatihatul kitaab benn yoon jàng allahu latifun bi xibaari yarsuqu man yasa woowu xaw yenaa sin juróom ñeenti yoon nga taayee sëlmal jàng astaxfirullah alasim cent vingt-neuf téeméer ñaar fukk ak juróom-ñeent jàng allahumma salli ala sayidina muhammadin nabiil ummi wa ala wa sahbihi wa nga jàng bismillahi rahmaani rahim cent vingt mooy téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne sumal ismu huwa nga teg ci nag ismu bi wala nga sumal suma ismu latif bi mooy yaa latif yaa latif boo tax yaa latif mille cent soixante et junne téeméer juróom-benn fukk ak benn ismu bi nag doog a ñëw allahu akbar ismu bi doog a ñëw fukki arab la nga nga bina waaw taatànk yaa Datank Miim waaw Alif Sine Sitoé bindal ma wax la da ngay enregistré waaw Tatank yaa mu mu ne wa tey nga bindaa Tatank Miim faa waaw Alif gu xëcc ak Sine Sitoé wa tey tamu fa waasu na leer damay jàngale bëgg mu leer ci ñëpp wa tamu fa waasu allahu akbar waaw ta tanki ya ta tanki miim fa waaw alif sin boo ko calculé mille cent soixante et un nga yam nga jàng ko mille cent soixante et un nga tëjee ko nga tëj nga doog a tëj nag faataatul kitaab gi nga sax nu garaawee nga doog a tëjee su muy ismu faataatul kitaab nag quarante cinq nag nga ñaan saajo nag yow bisub altine nga koy def wala bisub aljuma wala bisub alxames ci diggante julli timis ak gaye wala ci ci diggante julli suba ak fajar du ma ci dellu incha allahu taala ndax leer na nañ ñi